asalaamualeykum yéen jàngalekatu senegal yépp kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant la jox sa wàccuwaay man la Dame Mbodj secrétaire général national bu CUSEMS authentique dama bëgga ñëw rekk ak yéen ci benn xew-xew boo xam ni am na fi bëgg démb nga xam ni kuréel gu tudd UNESCO moo ko woote woon Euh, te mu woo ci ñi nga xam ne ñoom la jàpp ni ñoom ñooy acteurs yi nga xam ni ñoom la bëgg waxtaanal ci mbir moomu atelier boobu nag li taxoon ñu woote ko le vingt et un vingt vingt trois décembre bii nu génn mooy UNESCO teg programme am boobu mu tuddee éducation sexuelle bi nga xam ni euh, bu ngeen fàttali ko ci ginnaaw ñaari at ci ginnaaw Serigne Mbaye Thiam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 dëkkal sunu bopp wan leen lii du fi amee sunu njàng duñu ko duñ duñ ci jaare mukk di yàq suñuy doom di leen gëmloo ni phénomène nguur jigéen donc mën nañ koo tolérer kooku on ne l'acceptera pas